Assane dañ doon laaj tey ana ban gis-gis nga am ci député yi ci comportement bi nga xam ne ñu ngi koy am ni ci assemblée bi di xeex ak di ana ñoom ban taxawaay lañu waroon am ban gis-gis nga ci am. bu ñu demee ba taxaw biir assemblée. Hmm. di saagante. Hmm. di dóorante ñun population bi suñu doom bu ñu màggee lan lay wax te ñun nekk citoyen war leen a booteel hmm. ñoom ñu tax ñu ñu yàq suñu nelaw di dégg bëccëg ngir ñoom kon donc man loolu man toujours dama si dama si dama si am gàcce. parce que damay toog parfois sax ma ne est ce que dem voté jar na parce que pourquoi ma ne est ce que ko parce que da ngay rayante voté leen ba pare mais la nga doon séntu si ñoom doo si gis dara pour pour man sama quarante ñi des si non vote sax man moom mooy gënal. xale yu ndaw yi sax buñ koy seetaan dañuy rus asanuma laa ñu ñi nga xam ne ay magum jëmm lañ te ñu ay ñoom ñu ay mag ñoo xam ne dañ leen a wóolu teg leen fa ndax ñu ñoo leen fal Sénégal yi ñoo leen fal ñu ay kilifa ñu teg leen fa. ku ku xam député ci ci réew xam na ni lu am solo la lu am doole loo xam ne luñ luñ war a respecté luñ war a fonk la ba tax na ñoom buñ fa toogee dañoo war a xam ne population bi lañ fa toogal Sénégal lañ fa toogal ak dëkk bi fi mu toll nii ñoom war nañu sax am gàcce bi di xuloo di xeex di di di di di di di di di di kii di ne ay nelaw ndax ñoom ñu fa toog ñëpp avant ñu fa toog loolu lañ doon loolu lañ doon kaas lu tax député yi ne fa di kaas di xuloo di lii léegi ñoom kon bu ñu fa yóbbuwaatee ñu toog di def la même chose loolu ngàcce la boo xamante nii gàcce si population bi gàcce la si ñoom. mel nii loo xam ne ñu ngi koy wax saay su ne te ba léegi amul saafara parce que lu tax amul saafara mooy député yi seen intérêt personnel moo leen fa ba te dama yaakaar ne bu ñuy wax député du peuple war nañu mën a roy si maître El Hadj Diouf parce que il a montré des exemples mais député yoo xam ne dañ leen jël ñu nekk assemblée di nelaw guddi ak bëccëg di tàccu. loolu su fekkee ne loolu moo nar a avancé loo Sénégal Sénégal n'avancera jamais. député yi ñu ci dëkkal fii bu ñu xëyee dañuy te ñu ngi leen di seen ñuy xuloo di xeex ci biir assemblée bi te ñu ngi dëkk fii suñu quartier da ngay ñëw di leen attaqué seen bunt sax naan leen yéen man bàjjeen bee ñëw di wax ak yow dañ naan ah xaar xaar tëj seen oto génn dem. kon nag yooyu man mënuma ko considérer comme député ñu ngi leen di fay sunu xaalis nag waaye ameel nañ ñu àq parce que duñ leen ko baal te dañu waroon wàcc si terrain bi waxanti ak population bi ñu wax leen lan mooy méttitu population bi. maanaam xeex be xuloo bi lu ko waral ku nekk sa alalu bopp nga gis ak sa njëriñu bopp ndax ku ci doon xeexal population bi jarul ngay xeex ndax lu waay liggéey rek danañ la ko woon te noonu la la gars yi di wootalee koo gis muy xeex ak xuloo ci assemblée rek. poosam moo ko fa bàyyi mais suñu carburant la ñu utiliser suñu sareet la loolu yëpp yéene nañ leen ko loolu moom yëpp yéene nañ leen ko mais liñ leen fa sant nañ ko fa def mu ñu toogal fa population bi suñuy suñuy problème ñoom ñu dem toog fa résoudre résoudre suñuy problème ñun ñu mën see gis suñu bopp mais sénégalais yi mënoo ñu man de ba ma juddoo ba léegi ba ma juddoo ba léegi ci ci assemblée nationale njëriñu député man gisu ah man bokk ko dama am ci ñoom benn regret bi nga xamante ne ñoom rek laa koy jagleel parce que fii ku fi falu président ñoo la fal ku fi falu député ñoo la fal peuple bi ñoo war a am fulla fayda bàyyi di dajaloo ndax benn nit ñu jox la li ñu lay jox yow nga toog ci li nga toog fekk yaa ngi poisonné des million de personnes. képp ku fa nekk boo bëggee su élection jotee wala su voté jotee ñu voté la da ngay defal sa askan wi lu ñu teg seen bët loo xam ne nii ku fa dem gis ko. ku ko xool gis ko. vote dafa am solo. li ma leen dégg Sénégalais mooy ñu ubbiwaat seen i bët. ñu ubbiwaat seen i bët te seetantal buñ tollatee ci ay mbiru vote ñu xoolaat bu baax a baax a baax ki ñuy votel ak li tax ñu koy votel ñu koy ñu ñu koy ñu koy votel Sénégalais daal nañ gën a yeewu xam ne ñun bu ñu kenn dimbaliwul nañ nañ dimbali bopp. Mm-hmm. waaw nañ gën a góorgóorlu dimbaliwaat suñu bopp.